commune bu Mbacké jëlati lu takku si wàllu fourniture scolaire jébbal ko mbooleem école yi nekk si biir territoire communal bi ren jii nag li ñu nemmeeku mooy lu yees wàllu sinas yi àddina day dox te dox boobu muy dox dañuy war a dox ànd ak moom tax daaw dañuy yu am doole ànd ak say imprimante laser joxoon ko école yi ak jàngalekat yi ren ñu jënd leen risographe wax mën na def fukki junniy copie par bis boole ko ci fourniture yi jox ko jàngalekat yi ak directeur d'école yi pour que li nga xam xale yi daan nañ ko soxla ci bu ñuy def examen au lieu ñu dem di ko photocopier yi ak di dem ci cybercafé yi ñu mën a toog seen bureau yi liggéey ko. maire bi nag ni waxtu wi nu joxe fourniture scolaire yi bokk na si jéem a contribuer si principe bi di ubbi tey jàng tey. wante sunu bëgg-bëgg ngir éducation gën a jëm kanam ba ubbi tey jàng tey ñu mën ko appliquer ci Mbacké mais pas application seulement ci fourniture mais ak ci changement de paradigme. di soññ sama bopp di soññ maire yëpp di soññ inspecteurs yi di soññ directeurs yi di soññ jàngalekat yi que yal nañu gën a góorlu yàlla ubbi suñu xel ba at mii ñu jëm muy atum jàmm ci école yi ci milieu scolaire ak milieu universitaire ndax loolu mooy ndamu Sénégal loolu mooy ndam réew mi. ba tey si cérémonie bi ñu doon amal si teewaayu mbooleem directeur école yi nekk si Mbàkke yi maire bi di Abdou Mbacké Ndaw biral nii kat ketub école yi si ubbite bi itteel na ko loolu ba tax accompagné na waa service d'hygiène ngir ñu mën see taxaw. classe yi nag ak école yi service d'hygiène jox nañ leen produit bu doy ak carburant ak liñ soxla lépp pour ñu désinfecter école yëpp vraiment ba bu altine. xale yi mën a dem ci école yi fekk set ñu ñoom matériel didactique bi soxla. naka noonu Serigne Alioune Fall di directeur école bu Mbacke Dimb lu loolu taxawaay bii maire bi def. jëmale ko ci wàllu jàng ak jàngale yi ci école élémentaire yi ba tax muy fësal reconnaissance am waaye saa yu xolam ak poosam ba xam ni lii mën na ko mu dig ni ko saa yu jëf jotee jëf na ko ba ñu ñëpp suñu xool sedd ci mu ngi koy sant di ko gërëm te xam ni taxawaayam fii ci biir commune bi mi ngi jàppale waa commune bi ngi jàppale réew mi mu ngi jàppale éducation. ginnaaw ordinateur yi ñu joxe woon daaw boole ko ay imprimante ngir mboolem école ci Mbàkke toftal ci chaque année bi mu toogee ba léegi wàllu fourniture scolaire. ci matériel bu mu mënti doon te élèves yi di koy jëfandikoo ren ji li ci yees nag mooy risographe di jumtukaay boobee nga xamante ni dina tax ñu mën a def ay koppi yu bare yi si wàllu essai yi ak yeneen xeetu jongante yi ba mbir mi mën a yomb loolu si ndongo daara yi